parle d'une vidéo Lugo dal. quoi la vidéo lu ko Vito gi mel na ku koy ba max. Vito lu ko naqari Fatim. jaaxal buur. baax na yàgg yàgg bëree. loo bëgg ma laaj ko ko. ah Fatim. ah. xanaa dafa mel ni mën a ci géew bi. Vito taxawal bëree. Vito ngi naqasaale Fatim. yow mi ngi naqasaale kay. ah door nañ xeex nañ bëgg naa lii da baax bëgg naa ko. bëgg na Vito door nañ ko mu daanu daanu na door nañu Vito mu daanu Fatim door nañ ko mu daanu Fatim Vito lii la doon daw ah lii la doon daw xamoon na lii xamoon na ko xamoon na toon na ko wax nga dëgg njortoon na ko Fatim lii la lii daw daan nañu Vito daan nañ ko door nañ ko mu daanu Vito am